bu dee li tax a daje tey ñaari téere benn bi ñu ngi jëm ci dunduk sëriñ bi ñu ngi tudd euh, Cheikh Ahmad Bamba Abdullahi wa Xadimu Rasul Sëriñ Tuubaa ni mu nekkee jaamu yàlla am nekk liggéeykat Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere boo xam ne ay gëstu la yu wuute ñeenti gëstu yoo xam ne dañ koo defoon lu jiitu doon ci waxtaan ci ay xaaj ci dund bi njëkk dem ci géej gi laali biir géej gi ak biñ nekkee gànnaar ak biñ nekkee résidence surveillée ci Sénégal di gën di ko yenn yooyu lañ dajale nag ko xóotal gën koo faram-fàccee ba génne ko ci téere xam nga dañuy mottali ñun dañuy sof ci li kàngam yooyu def ndax kàngam yooyu lu ci ëpp ku ne daam wañ ko bind dañu bind ay jaar jaaram ñi bind ñi bind ci xasida yi nga xam ne an wet goy daal ci lañ yitte ñun nag daayira bi di mbooloo moo xam ne yitte yooyu yëpp lañ bëgg a boole xam ne téere bi lu tasaaroo woon ci téere yooyu woon ci téere xëy na li ko wutale yeneen yi mooy téere yi ci des ci daa am genn wet gu mu gën a fekk jàng kese ki jàng wetu xam-xamu sëñ bi kese ki jàng ay cosaanam kese téere bi nañu boole yooyu jàpp nañ ngir am delluwaay boo xam ne benn lay doon gëstukat bi mën cee dellu yooyu yëpp fekk ko gis ne amutoon ci njab yi ci ci saxaar moo tax waxee yéen ñu ngi koy tekki ci wax français te incha allah dinañ ko tekki wax ci moo njëkk ndax ndax sëriñ bi ñu waxtaane ñun bind lépp ci arab la waaye danañ ko tekk ci làkk yi nga yëpp adduna soxla xam ne bëgg xam sëriñ la jëm ndax fañ ko doon moo la ci limaa bari na fa lañ ko bàyyi tasaare ko ci mag bibliothèque Cheikh Modou Bassirou Mbaye bu yàggul génn fi ak tournée bu yaatu ci Europe ak eh, ci lenn ci réewi Asie ñu ngi yóbbaale na ko daanaka dañoo bëgg mu tasee développé yu mag yëpp dañ ko mu lay jot dem sëñ mu taxaay ñu fi ñëw ñëpp buy dem dal la ci jox téere bi juróomi téeméeri xat mooy cinq cent page dunduk sëriñ bi njëkk muy dem ci géej ay cosaanam ba nim demee ci géej tukki géej gi bopp dafa xew ñu jaar li ko sabab ci zahir ci ba ñu bisi nekk gànnaar la xew gànnaar ak la sabab ci yéen ak njaale ba dañu gisee Tuuba ñu yokk ci nag ay mutaxaat yenn yi ay photo la yenn yi ay seere yoo xam ne boroom xam-xam yu bari yu mag ñoo ko seere ci moom yenn euh, ay desiti ci njëriñ ak Tuuba am na bind téere yi muy référence yu ñu daan dellu dajal nañ ko fenn li ñu xam yëpp ñu tudd moom lañ am yaakaar ndax jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñàkk xam moo taxoon ñu doon bind loolu danañ ko saafara ndax wutal nañ leen delluwaay boo xam ne mën na caa dellu ki nga xam ne nag yeneen yéene am moom moom itam bu bindatee am na lu ci wet gi luy wet dina leen bind bu wuuteeg loolu ñu xam ne loolu mooy njëriñu teere